sama nawle jigéen la si kaw waxtaan la ñu waxtaan juboo ba tey ñu d'accordal ko am loo xamante ni waxtaane nañ ko si biir fas yéene wan ko fas yéene yor ko suñu commune nord te incha allah suñu commune nord dinañ ko gañe li tax ñu investi ko nag moo ko wane si kaw ni mu ko wanee nag grandeur am la si kaw ni ko wanee nag mooy dafa ñëw wane taxawaayu kilifa ni nii laa bëggee ñu doxale ko nii laa bëggee ñu waxe wax kenn ku nekk te kenn ku nekk ba ko waxee am na loo xam ne buñ ko waxee góor góor ànd si ñun waxuñu moo ñu am ëpp xam-xam waxuñu moo ñu gën a mën a politique fii daf fi fekk ay politiciens man du ma war mais am na loo xam ne c'est le politique suñ la ko tegee nangu woo ko doo ko doo dem te am na loo xamante ni man dama yàgg si parti bi kenn jiite ma si ma toog ba ñuy jël xale di ko di ko jiital du ma ko nangu kon ma dem jiital ki la am na ndambal tànk bi nga xam ne yow ko

Sarr diviser parti de te dafa pour def l'unification l'union de l'ensemble des responsables et loolu c'est pas du tout normal il faut qu'elle arrête amul base politique yorul ñetti nit yoru ko bu fayul nit mënut fessal sal loolu kay leer na non à jaata man duma jité. président Macky Sall leader quelle que soit décision yi muy jël ñun duñ and tey duñ and euleuk bu demee ne moom mooy candidat bi moy manam APR Benno Bokk yaaka dañuy perte

leer Kër Massar pare nañ président dinañ ko daaneel yow bi nga nekkee ministre sax représenté woo fi dara kenn xamu la yaxantuma la ak jii ba nga ñëwee ni da ngaa jël maire bi mënuñu fee jiite ñun fii faami Assome Diatta bañ fi nekkee di liggéeyal APR di liggéeyal son excellence le président Macky boobu moom fa la nekkoon yow ñu nommé le ministre ci région de Ziguinchor nga fa toog liggéey nga bàyyi terrain boobu noonu pour opposition Assome Diatta wax ji ñom ñoo ci waroon wax parce ñoo dëkk fofu mais buñ ca waxul ça veut dire que elles sont de connivence avec opposition bi ñom seeni mbir ak opposition bi lérul yag yag yàgg yàgg contre contrecarrer suñu parti parce que fii ci Kër Massar mu ngi diviser suñu parti APR